pour nga ñaanale leen ko moo tax nit dana def shafaak witar ba tey te li muy jariñ du ko xam moo tax yàlla di wan nag bis bu yooyu ñëwee waaw hal fi dalika qasamun li di xijar ndax luy jar may giñati amati na fi waaw mu di ko wan ni ko nag guddi yooye yépp ñoom it ña nga ca xaybul malakuut di xaar guddi yonent bii ndax shafaak arrahma rabbaniyaat yi leen mën a xettali yépp boroom guddi gee ko yëndaale ni ko beneen guddi ma nga fa di xaar ca xaybul malakut mooy yaa ayyuhal muzammil qumil layl ñu bare jëliwuñu ko mudaffiru nubuwa wa muzammilu risala مدثر النبوة ومزمل الرسالة ونقول يا أيها المدثر يومد النبو اللبنان ndax yëggi say yaram yëg nubuwa te mënatuloo jaxasoog nit ñi ba tax ngay nëbbu nëbbu jeex na kon nag qum fa andir قم فانذر وربك فكبر نبو جيحنا رسالة بكما ساك وحي بي مدوش خديجة زميلوني زميلوني يالا نيكو خديجة جيجن بو بحر سخنا بو عمل مرام لا waye tey dootul sa wétte benn wétte rek كنا قوم الليل foofu rekk nag fa nga dese moo tax wa qurratu ayni fi salaa mu jóge ca ñu joxañ ko beneen subhaana alladi asra bi abdihi ñëpp jaxal ma da bi nan bi yonent bi rañane mana bi deppowul parce que bu doon sara la fekk ni yonent bay rañane mais asra motax tax laylatul isra laata yonent bi di dem li mu njëkk laaj bala ñuy def mise en place bi mise en place bi ci fi mu war a nekk li mu njëkk laaj ci seenoom bu njëkk mooy ku muy seeti lu yéeme na ku yonent bi doon seeti ci kaw da boo ne sunu borom la don seet si mook mooma ànd wa huwa maakum aynama kuntum ak la tahzan inna allaha maana ca abu bakr ca xaaru xiraa kon nak kumu don seti ci kaw لنريه من آياتنا لك باسكو ريسبونسابيتي بينكو يان فوك آيات الآفاق أك آيات الأنفس فوك مو ماتريزيكو موتاخ لنريه من آياتنا ديغا تي غيس بروم فري صح كو تي دانو ndax innahu huwa samiul basir ñu ni yàlla te fekk du yàlla yeneen tibe ko moom parce que bu nekkul samia nekkul basir li ko yàllay won du xam lan la